guddi na yàgg ngeen fi jëloon jëloon nañ nag sunuy motukaay yëpp pour teel a ñëw monsieur le maire Mbaye Dione mi ngi jël si Pout bëgg gaaw tax ñoo jaar ci autoroute bi malheureusement il y avait un accident perte nañ fa une heure à deux heures mais loolu taxul. loolu taxul yéen a ngi toog mobilisé wu monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la félicité tey jii defal ngeen ñu lépp préparé meeting bi toog fi ba waxtu wi ak fi jamono toll koo ko defal bëgg nga ko fonk nga ko koo ko defal am nga ci moom yaakaar moo tax mbay jonn faw ñu gën a góorgóorlu pour bu ñu yàb yàlla yóbboo assemblée population yëpp yëpp laa wax ñu xool seeni soxla taxaw ci wax ci fexe mu sotti xam naa ne nag fii tali bi seen préoccupation la ndax Ngoundiane dañ ko xam ci ay carrière muy alal ju bari ju fi génn ñuy ñaan que xale yu Ngoundiane nañ ci am priorité bokkoon na ci suñu programme présidentiel incha allah bu ñu yàlla yóbbu assemblée dinañu fexe ba fu alal am doomu gox boobu kenn du leen ci ëpp cër. waxuma leen des contrats à durée déterminée déedéet néewuma it damay weñ loxo entreprise yi def loo loo xam ne dëppawul ak yoon déedéet dañuy xool la nga xam ni moom mooy dëgg la nga xam ni moom mooy yoon li dëppook jamono Sénégal dox ci loolu xam nga nag réew àndul ak wax wax nañu ba jël réew mi waaye nag wax nag moom bu ñu dénkee réew ngay wax da ngay wax ba yàq réew mi te soreetul di nga waxit ba yàqal sa bopp ndax soreetul ndax tey jii senegal ci juróom-ñaari weer kenn nawatuñu kenn bëggatul toog ak ñun kenn bëggatul waxtaan ak ñun ndax nii nga xam ni ñu ngi koy doxalee xotti worma réew mi xotti ma kilifa bu mu mënti nekk tey defoo loo xamante ni dina jëmale réew mi kanam dëgg la digoon nañu projet andi nañ ko ci juróom benn weer du performance du performance man de liggéey naa ci projet man mii bokk ci ñi ko jiite am ci cër bu am solo ci juróom-benn weer tëgg nañu projet bi ci juróom-benn weer wër nañu Sénégal yi wax ak ñoom ci juróom-benn weer yi wër nañu adduna bi wax ak ñoom ci juróom-benn weer yi. alal ji war a defar Sénégal andi nañ ko fi ci juróomi at yi kon donte projet bi baax na ndax lañ fi bàyyi woon moom la ñuy continuer amul jafe-jafe nangu nañ ko waaye nag yeex na te sonn ngeen Ngoundiane est-ce que am na kenn ku fi dooleeku xale yi laa ko laaj. kon mooy yow nga problème que population bi nee nañu ah, kon dafa jot dafa jot que erreur mois de mars bi ngeen corrigé ko ci jàmm ak salaam xiiroowuñu ŋaayoowuñu saagawuñu kenn ku am projet bëgg liggéey jarul ngay saaga jox nañ la jumtukaay yëpp wàccal ci terrain bi liggéey moo gën nga wàcc ci terrain bi di wax rek fuñ la seen yaa ngi wax rek wax ju rëy joo wax rek xeeb ko ci suba sa nga dolli ci bu ko gën a rëy te dañ laa dénk buñ la dénkee doo tiital askan wi da ngay da ngay da wàcc ci terrain nañ ko doon defee dëgg la élection jàll na jox lañ leen majorité c'est sans problème buñ la joxee majorité dañoo bëgg nga def li gën li nga fi fekkoon mais ci juróom-benni weer yi daal xam naa ni doyal ngeen sëkk. loolu lañ leen bëgg a saafaraal ci assemblée nationale. waaw du doon assemblée nationale boo xam ne député yi dañuy ñëw di ci taabal yi di dagg ay micro du loolu day doon assemblée nationale boo xamante ni dañ fay toog mu doon péncum ndawu réew mi ñu fay waxtaanee li askan bi soxla ñu fay waxtaanee lu gouvernement bëgg a def di fa waxtaanee aussi la xam ni gouvernement bi xelam xëy na demu ci waaye député yi seen xel dem na ci ñu fexe ba loolu mën a jàll pour réew mi jëm kanam loolu moo tax ñu soxla majorité ndax boo waxee ba ñu jox la réew nga continuer wax bëgg jox réew mi waa réew mi di tumuranke di tuskare loolu da ngeen ko war a bañ da ngeen ko war a bañ da ngeen ko war a bañ jëf xam naa ni fii nos parents sérères sont déterminés à tourner la page won leen ko nee leen juumoon nañu il faut que ñu jooyanti ko ci jàmm ak salaam dañoo sonn ci ay dañoo sonn ci wax ju ñaaw dañoo sonn ci xuloo xeex li ñu laaj mooy liggéey li leen laaj mooy ñu liggéey kon nañu noppi wàcc ci terrain bi ñu liggéey moo tax le 17 novembre bu ngeen joxe majorité la coalition bii coalition jàmm jàmm ju mot sëkk coalition njariñ jàmm ak njariñ te jàmm te njariñ amul jàmm ja dana des boo amee njariñ dafa nga dëkk amul jàmm njariñ bi doo ko soxla jàmm ak njariñ dafa war a ànd loolu doo tox ñu tudd sunu coalition jàmm ak njariñ am ci ay responsable am ci ay borom xam-xam ñoo xam ni gëstu nañu ci programme yi wane nañu fi réew mi toll lan la war a def ba mu gaaw loolu la réew mi soxla man lu leer wax nee naa leen bu nga ñu joxee majorité danañ leen wax fu ñuy jaar ndax gouvernement am na cër néewuñu dañuy nangu gouver cëru gouvernement waxuma loolu am na cër waaye ci ñetti weer dinañ wax réew mi. wax askan wi fu ñu war a jaar ak nan lañ ko war a defee ak nañ leen ci mën a jàppale ba réew mi njëg yi wàññeeku am na luñ ci def waaye dafa doyul réew mi mën naa def lu ëpp loolu am na luñ ci def dëgg la waaye dafa doyul dafa doyul réew mi soxlawul asaka dañoo bëgg nit ñi ñu gën leen jàppale gën leen dimbali marchand ambulant yi béykat yi ñi nekk ci carrière yi ak feneen ak feneen jakartamaan yi ñoom la ñu war a def priorité des priorités boo ñëwee ci pêcheurs yi foog ñu jàppale leen bu nit di liggéey ci dara toog ba ceeg bàyyi loolu soppi ko bés bu nekk mu yëpp ay xale jëm Europe xamal ne liggéey boobu doxatul secteur boobu foog ñu xool ko bu baax yooyu yëpp dañ ko war a waxtaane ci réew mi ñu nag njabootu réew mi ñu xool niñ koy saafara maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen gërëm di leen masawu jërëjëf jërëjëf jërëjëf